mbok Sénégal amna naa lol tay ci inauguration bi ñu def ci AIBD di inaugurer garu train bi muy TER nga xam ku tukkee di ñëw bu la nexé bo wàccee avion da ngay jël passerelle bi wacc ci gar bi jël train dem Ndakaaru wala ëllëg nga dem Thiès ndax xam ngeen ni projet yi ma amoon bokk na ci Dakar AIBD waye bokk na ci AIBD Thiès AIBD Mbour Lolo nak xamna gouvernement yi ma fi bayyi bu ci yalla andé boo len leen wóoloo jàppale leen danañ len tabaxal autoray bi be Thiès tabaxal ko Mbour monsieur le maire de Kër Moussa ak meeru Diass dégg naa doléance yi ngeen fi wax jaadu na ñu jox leen ndox ci zone sud bi ngeen wax fii ci commune bu Kër Moussa jaadu na it ñu defal leen yoon yi ngeen wax kon loolu premier ministre dégg na ko ak ñi nga xam ne yoon yi d'ailleurs programme train bi sóoraale na ko donc danañ ko def li ma leen mënul jox nag comme promesse mooy gaar fii ci Kër Moussa loolu nag bokkuloon ci projet bi lu ci bokkul nag duñ ko ci boole parce que dafay yàq programme bi dina ngeen defal daal tali yoo xam ne soo leen ko jëlee da ngeen ñëw ci gaar bi fii wala ngeen dem Sébikotane jël train bi du loolu kon nag d'accord nañ si monsieur le maire de Diass incha allah dinaa la jël audience pour nga jox ma itam doléance su Diass su ko defee ñu toppatoo ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di mobilisation de leen wax jërëjëf